nee na nag bi gën a doy waar nga xam ne toj na Sénégal dégg ngeen ko bërki démb semaine bii mooy toppukaay yi nga dégg amul lu ci xewul nee na xorubul ihlaamiya bu ngeen ko déggee mooy guerre médiatique nekk ci internet bi jàpp sa doomu aadama weer ko ba mu mel ni géej di ko xas di yàq deram bu subaa nga ni diw la gannaaw suba nga ni diw la gannaawaat suba nga ni diw la tii nit ñi di leen xas di leen def géej ci internet bi Cheikh naa ma nee na lii de yëm na ko nee na nga gis ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci dëgg ñi xam dëgg te xam ko lool waa mais naka ngay xam yow dëgg moo ngi Cheikh Omar jàll fen ngi moo ngi nii nga bàyyi fa dëgg yow dam xaritoog fen lu dul dëgg dalay gënal yow dëgg ci Sénégal ñi nga xam ni attention ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay responsable nga xam ni mbiru jullit yi kilifa yi nga xam ni mbiru jullit yëpp seen loxo yi la ne nga xam ni ñoom mbiru jullit ñoom ñooy responsable yi bil amri wan nahi moo xam ci di leen digal lu baax di leen tere lu bon fala yamuruna wala yanhun waa mais ñooñu duñ leen digal lu baax te duñ leen ko tere ba pare ñu ni ñooñu ñoom la ñu jël seen mbir teg ko ci seen loxo wala yashhaduna bil haqqi abadan te ñooñu boo seetee réew mi ñu ñu jël teg leen ni ñooy kilifa yi cheikh na cheikh naama nee na xeetu dëgg duñu ci dox mukk mukk mukk ngir lan complexe ngir lan ragal ngir lan tàppet cheikh na cheikh naama nee na loolu baaxul nee na daal cheikh ma nee na gis nga góor dëgg waroo tàppet sa moroomu jullit gis nga góor dëgg waroo ragal sa moroom wallaahu aqu an yaxfuuhu booy ragal da ngay ragal ki nga xam ni moo la bind te mooy sa boroom cheikh naama nee na soo ragal ragalal kooku laa taata li maxluqin fi suxti alxaaliqi eh Abdourahman al nee na laa taata lil maxluqi bul dem fekk nit ku ñu bind simple doomu aadama nga koy ragal ba bu waxtu julli waxtu yàlla bi su jotee doo ko jox ngir ragal nit laa qaadata nee na amuñu kilifa wala machaïxa amuñu ay kilifa ay kilifa yoo xam ne ñu war a orienté ay sëriñ war ñoo orienté ci yoonu diine wala imata ana imaam yi Cheikh na ma mi ngi posé question nee na ana imaam yi ñu war a teg ci yoon ana ñu fannaasu asbahu yamuutuuna fi hadihi dunya cheikh naa ma ne li mu gis moom mooy nit ñëpp lap nañu ñëpp ñëpp dugg nañu ci ci géeju lap goo xamante ni ci àdduna gii la ne waaye nee na moom gisul solution bi nee na moom xamul sax fan la jëm fan la jëm nee na nag ah lii nag boo amee nee na toroxtaange nag dal na nit ñi nag nee na amatuñu ay njiit de amatuñu ay sëriñ de amatuñu ay imaam de ah amatuñu ku ñuy digal amatuñu ku ñuy tere effectivement foofu la Sénégal toll moo tax fi mu toll nii kilifa diine yi sëriñ leen war a jox Cheikh Naama nee na joxatuñu leen ko reste amatul parce que complexe bi taxaw na ci ñoo côté droite bi ak côté gauche bi. waa léegi Cheikh Naama nee na bu demee ba ñuy war a orienté amatuñu ku leen teg. ci yoonu orienté leen wax leen dëgg wax leen li yàlla wax wax leen li yonent bi wax nee na boobu réew fan la réew mi jëm. moom maam kër Cheikh Taalib maam maamam kër Cheikh Taalib Bouya. man Cheikh Abdoul Aziz rek laa xam. man daal Cheikh Abdoul rek laa xam. ku ko jàpp. ku jàpp Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz. jàpp naa la jàpp naa la. ku ko jàppul jàpp ma jàppul ma maanu ci yow jàpp ma la. waaye ku geer sama kër maam. waaye daal ku geer sama kër maam Cheikh Taalib Bouya. ma geer ak yow. dinaa geer ak yow de. zahiratan wa batinatan. zahiratan wa batinatan ak koo mënta doon ak koo a doon ak foo mënta nekk ak foo mën a ne parce que bu ñu nee Cheikh na Cheikh Aziz bu ñu nee Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Cheikh Talib moo tax Cheikh Talib wax loolu moom moo ko meññ a doon boo xeexee na Cheikh Talib Bouye boo xeexee kër Cheikh Talib Bouye man Cheikh naa ma décré naa la décré naa man Cheikh naa ma décré naa la guerre de man nag sama guerre du fetal nee na nag attention mbokk yi du fetal du jaasi du jaasi du wax bu ñaaw du wax bu ñaaw de waaye su jotal yàlla ni ko allahumma waaye yàlla nag penkoon moom bii du fees allahumma ne ko allahumma ahlik man aadaana ahlik man yow yàlla wa ma firi ko waaw waaw yow yàlla yàlla nga alak képp koo xam ni sama noon nga wa shittit shamlahu yow yàlla yàlla nga ko yàlla nga ko maanaam xam ngeen rocci rocc ba dootul amati benn bayre dootul amati benn secret bu mu diriger dara ci àdduna wa mazziq jam'ahu yow yàlla moom mii def loolu yàlla nga mboqati olof bi la sax mboqarti foq di mboqarti maanaam koo xam ne dañ koy jàpp rek boole koog njabootam yëpp rek gas kàmb ba mu xóob rek màbb ca kawam. wa xudulhu ila yawmi diini. yow yàlla yàlla nga sànk kooku. sëñ bi ñaan bi rëy na de. man noonu laay ba yow mal xiyam yàlla nga leen sànk ñoo ñuy def loolu. man noonu laa moom daal buy xeex penku bii comme di jeex yorul fetal attention. amul fetal amul jaasi du wax lu ñaaw yéen ñi man waaye yéen ñi ànd ak moom xam leen ni kër Cheikh Taalib Bouya xam leen ni daal kër Cheikh Taalib Bouya moom rek la am nag waaw waaw ku ko xeex ku xeex sa kër maam xeex ak yow ku ñu fa xeex sa kër maam doo xeex moo tax mu ni ko xeex kër maamam mu xeex ak yow wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatullah